nataal fukk ak bi mu dee yeesu denc nañ ko ci bàmmeel bu ñu dencagul kenn bu ñu yattee ci doj benn nit bërëng doj bu rëy ci bunt bi ndax ñu mën koo denc bu baax noonu yeesu yi teg fa ay xarekat ci bunt bi ndax ñu koy wottu ndaxte dañoo ragaloon ay xaritam ñëw jël yaram yi yóbbu ba noppi yëgle ne yeesoo ngi dund génn ci bàmmeel bi yéesu waxoon na bu leer ay xaritam ne leen bu dee ñetti fan rekk lay def ci bàmmeel bi ba noppi dina dundaat ndaxte mooy yàlla mooy yàlla biy dund waaye xaritu yéesu yi àndoon nañu tiis bu rëy rëy bi mu dee ndaxte fàtte woon nañu kàddu yum leen waxoon lépp ñetti fan bi yeesi dee ñenn ci jigéen ña ko doon topp xëy nañu dem ca bàmmeel ba te doj bu rëy boobu dindi woon nañ ko ci bunt bi xarekat yu doon wot bunt ba fees ak tiit ndaxte bàmmeel ba kenn nekkatu ca ndax yéesu dekki na ci loolu yëngu-yëngu ragal am ndaxte bàmmeel ba kenn nekkatu ca benn malaaka feeñu jigéen ña ne leen bu leen am lu ngeen di ragal xam naa ne yéesu ngeen di seet bi ñu daajoon ci bant bi moom nekkatu fi moom mu ngi dund nu mu leen ko waxe woon jigéen ña daw di dem te fees ak mbég dem nettali lépp li ñu gisoon te dégg ko ay xaritu yéesu